mbokk yi safoo seen chaîne Kulanjan TV asalaamaaleykum bisimilah ci xibaar ci tënk. xibaar yi des koy door rek ñaareelu xew-xew bu mag ci yoonu murit mu di màggalu poroxaan. ñu jàpp ko niki ëllëg ñaari fan ci weeru février ci atum 2023 Poroxaan féete ci région bu Kaolack màggal gi ñu jagleel ko soxna Maam Jaara Bousso di soxna su sell su indi réewum Sénégal Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ñu ne ci waajtaay bi ci ayu bës yi kilifa diine ak kilifa aada ak itam waay politique yi di dem ca diwaan bu sell ba ziyaar ak itam waxtaan ak xalif général des Mourides mu taxa Bassirou Mbacké ci Fayoyi, Bokonasi, vice-président de l'Assemblée nationale Mamadou Lamine Diallo mouvement tekki Nikita talaata bi amal ab Wartan waxtaan ak xalif bi ci bug mouvement tekki Moudi, di bokk ci jongante farub bu Sénégal ci 2024 inch'Allah, allah ca Mamadou Lamine Diallo xam nga ne Macky Sall sàmmul benn yoon ay ci kanamu

sabab banak violence verbale bi ñu ku ci réew mi ci ayu manam kaddu ñaaw yu bëri yi. ba ci répétition Aminata Touré mi ñu assemblée nationale signé na si de bi di ci woo kilifa diine yeeg kilifa aada yi ngir jamm mëna déggu ci ci réewum Sénégal. ñu addu ci way réew mi ci corruption Sénégal fété ci rëdd bu bi ci guerre. Bougnou ñu sukkandikoo ci rapport perception corruption ci atum 2022 Sénégal toog ci 73e place bi am notu 43 sur 100 loolee nak dara baaxu ci te amaguñu benn mesure bu mën tax ñu xeex wàllum guerre ci réew mi Seck ci forum civil naxar ko di dëggal itam ne ba Sénégal ñaké madame Nafingom, ci bop nak office national de lutte contre la corruption Bataille, Réoumé, des mi day vois, guerre mbokk yi fi la ñu yem ak ci xibaar ci